joxoon ci ndigal waa Touba Londres muy Angleterre ak réew yi nga xam ne ñoo aju ci ñoom ñëpp muy jaayante añu jumaa ji xam ngeen ne jaayante añu jumaa ji waxtu wi daaw lañ ko tàmbali woon ba fi mu nekk nii daanaka ñu ngi ci téeméeri nit ak lu topp léegi nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadul taxa ñu demoon ci moom am ndigal ci moom ngir fas yéene ubbi benn jaayante boo xam ne dafay tàmbali incha allah la 15 décembre ba le 15 janvier ngir murit bu nekk ak foo mën a nekk ci àddina bi nga jaayante quatre-vingt mille francs CFA muy fukki junni ak juróom-benn yoo xam ne murit bu nekk daf koy jaayante ngir mu doon sab bis boo xam ne da koy jël muy añu jàpp boo ko defee dañ cee soxla lu mat mille murit jataay bii nga xam ne fi lañ nekk nag ci kilifteefuk sëriñ Afiya Buso mi jiite daayira Moukhaddamatoul Khidma ak kilifay daayira bi ñoo fas yéene ubbi jataay boobu ngir képp koo xam ne gis nga image bi Euh, gis tamit numéro yi ñu jaayante nga mën a tàbbi ci liggéey boobu tàmbali mu jëm la 15 la 15 nag mooy lancement bi ñu koy defee foofu ci Angleterre incha allah kon ñu jox kàddu gi sëriñ min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julli di rawatina bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fa ma di nekk ci àddina bi di leen ziyaare di leen ndokkeel di jiital nag ci loolu Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahu llahu waraa ñaan su moroom te bu ko kattan yokk fiq fiq aw fanam ba li mu yéene liggéey sëñ bi lépp mu def ko ànd ko njaboot sëriñ Tuubaa gépp mbokk yi ak taalibe yi waaw bu loolu wéyee nag ni ko Cheikh Abdoul waxee rek ci liggéey bi nga xam ne daarul xadim mu xadim sama mos a dañ di ko taxawaay ci luy yéwénal ndénkaan li nga xam ne moom la ko sëñ bi dénk loo ca am xalaat yu génn yoo xam ne ci la bëgg ci sëñ moo lañ bëgg a gaaral mbokki jullit yi noonu nag suñ ci taxawaay weesu rek sant mbokk yi ci li nga xam ne moo weesu taxawaay rafet yi nga xam ne defañ ko ci li weesu lépp di sant itam taxawaay yu na mbaayu mbaa ko raw ci yi jub si ñaan suñu borom defal ñëpp kattan ba lépp lu ci waay yéene mu def ko ni ko ni ko bëggee te sëñ bi nangu ko te fayal ko te bàkkeel ko barke Seex Xaadim ko jox mbokk ñu leeral lan mooy liggéey bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci turu daairatu muqaddamatul xidma di am mbégte lool ci toog ak sunu kilifa sëriñ bu so mi nga xam ne moo jiitul daairatu muqaddamatul xidma di imam fii ci jumaay Tuubaa Euh, liggéey bu am solo bi nga xam ni ne daayira Muxaddamatul Xidma dénk na ko waa Angleterre ci njiitul sëriñ Alhaji Fallou ak sëriñ Abdul Akim Mbay muy jaayante boo xam ne dañ koy def mu jëm ci añum ñi nga xam ne ñooy liggéey jumaa juma ji euh, ajuma ju ne liggéey boobu nag nekk liggéey bu am solo boo xam ne ñoom yàlla dafa dogal ñu ñëwoon teewee benn assemblée générale bu ñu doon def yëg ne sëriñ bii moo yore woon liggéey boobu mu diis dool waaye ay lu ñaar fukki ak nangam juróom-ñett mi ngi ci loxoom yoo xam ne liñ ko liñ ko ci jàppalee lu néew a néew la yàlla dogal nag ñu am yéene ñoom ne loolu xamewuñ ko woon noonu waaye dañoo bëgg mu tasaaroo ci mbooleem taalibe yi murid yi taalibe yi yanul ko ko ndax li mu yanu doy na ko sëkk ci loolu nag ci lañ taxawale jaayante bii boobaak léegi ni ko sëriñ Abdou Lahad ñu di ko doxal ba mu agsi fii léegi nag ñoom dañoo dem gaaral liggéey bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Cheikh Mouhamadul Mountakha yeesalaat ndigal li ndigal li nag yeesalaat leen lool ndax am murit bu jotee ndigal ci ki fi nekkal Serigne Touba loolu day yëngal xolam day yeesal pas-pasam loolu moo tax ñu ne dañuy def weer woo xam ne weeru jaayante lay doon woo xam ne dañuy soññi murit yëpp léegi soxlaatuñu juróom fukki àjjuma ñaar yi am ci at mi waaye junni murit yoo xam ne kenn ku nekk day joxe ab añ lañ soxla ajjuma ji añ bi yem ci ajjuma rek waaye ñi nga xam ne sax dañ fiy nekk yeneen bis sax di liggéey te li xam nañ xam ngeen ne bis bu set mbooloo nga fi muy liggéey ñoom am nañu yéene àgg ci man leen a añal loolu moo tax ñu soññee ab jaayante jaayante boobee nag sëriñ bii nga xam ne mooy kilifa ak euh, daayira bi moo ci jiitu joxe na ab añam ab bisam muy quatre-vingt mille mu ngi nii mu tekk ci loxoy sëriñ bi waaye bi mu ci noppee itam mboolem ñi nga xam ne ñoo seq bureau daayirat muqaddamatul xidma kilifa yi kenn ku nekk itam euh, jaar na ci ay tànkam fas yéene jaayante moom itam am na ñoo xam ne génne nañ seen joxe nañ seeni jaayante ba noppi am na ñoo xam ne itam warul nañ seenub jaayante fas ko yéene joxe ci loolu nag ñuy ñi bokki jullit yëpp di soñ soññi bokki taalibe yëpp ñu kenn ku nekk fexe ba ñaqam dem ci ndax euh, jël benn tib jox ko ku xiif képp wax nañ ne moo gën tabax junni jàkka kon nag kenn ku nekk war naa fexe ba ab dërëmam dem ci ba ñuy wax nag jàkk ba ñuy wax lu mel noonu nag kuy liggéeyal Serigne Touba te di ko liggéeyale ci barab bii taxut moom ñuy wax ndax euh, jëf dana gën a màggante ci kañ koy defal dana gën a màggante ci ki koy def dana gën a màggante itam ci fiñ koy def lool yooyu yëpp nag daje ne fii barab biñ koy def ak kiñ koy defal muy Cheikh Khadim mi ñu koy defal ak ñiñ koy defal te nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy taxawee liggéeyu Cheikh Khadim bii yaakaar naa ne kon. loolu war naa tax murit bu nekk war cee bàyyi xel war cee jëf te war cee taxaw bu baax a baax a baax euh, date bi nga xam ne nag ci lañ fa yéenee tàmbali euh, jaayante boobu mi ngi nekk euh, fukki fan ak juróom ci weeru décembre ba fukki fan ak juróom ci weeru janvier muy le 15 décembre ba le 15 janvier ca London ca Angleterre incha allah waaye nag yemul London yemul Angleterre àdduna bi lépp àdduna bépp la fu waay nekk te di jullit tey seetaan wala ngay dégg suñu kàddu rek. bokk nga ci liggéey boobu ñu ngi la ciy séntu bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Xaafiya jërëjëf sëriñ Abdou Lahad kon bokki jullit yi bokki taalibe yi ni ñu ko doon waxee rek bàq baa ngi noonu tooy na xëpp maanaa ku yor sa ji na fas yéenee ji ndax danga am gàncax gu baax te naat ndax fi ñu koy def la. fan la defee suñu quatre-vingt mille yi ñuy jaayante ñu ne ci jumaay Tuuba añ bi nga xam ne ñu ngi koy toggal ñiy bale si ak ñiy jubbanti sàppe yi fii ci jumaa ji. loolu kon euh, dal na xel su ko defee bokk yi kon liggéey baa ngi noonu képp koo xam ne ba ngaa liggéeyal Serigne Touba mën nga koo jaarale ci numéro weefu daayiram Xadimatul Xidma di 77 686 13 13 77 686 képp ku ci jaayante sa 80 000 mel na ne jël nga benn ajjuma ngir fas yéene bokk ci 1000 murid yi nga xam ne Cheikh Amadou Mountakha joxe na ci ndigal. képp koo xam ne ba ngaa joxe sa jaayante sa 80 mille ngir mu jëm ci liggéey bi nga xam ne. kilifa gi ubbi na ko tey jii muy Serigne Afia man nga koo jaarale ci 77 686 13 13 numéro boobu numéro féef la numéro Orange Money la lépp lu ci waay dugal rek ci jaayante bi lay jëm ci daayiram Xaadimatul Xidma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam